seetaan leen vidéo bi euh, ma ñëwaat ngeen baal ma nag ci vidéo bi ma leen tegal nii ngeen baal ma. parce nga dem di votal opposition loolu mënul nekk dëgg la maa ngi maa ngi xool xippi sama bët di xool ku voté xam naa ku voté wul xam naa maa mbokk sama mbokk olof yi wala mbokk commerçant yi yoo xamante ne tey jii dañoo jóg taxaw temb pour voter contre Amadou Ba ñooñu laay waxal. gars yi kii mooy Moussa Bokar Thiam. mooy min moo yor ministre communication yooyu moo doon tëj wal fajiri ak tijji rek moom dafa violent de nature kii nii nee na yéen ko déggandoo pour ko comprendre li muy wax nee na deko koo xamante ne nii dëkkoo wurasoo gi nee na dëkkoo wurasoo gi maanaam maatam dëkkoo fa nga ñëw liggéey si fa ngay wolof voteeloo amadou ba nee na danañ la ba yi même bu yi même maire waaye yéen na ngeen wàcc ba pare rek yéen ñu doog a xool lu ñu def yéen na ngeen ñu abal ba pare rek ñu doog a xool lu ñu def ñun ñoo doyal ci yéen da ngeen a violent te yaa ngi continué di ko vone ba ba bi ngeen nekkee ci ci faiblesse maanaam ba bi ngeen faible nii ndax jamono ji nii moom yëpp xanaa ñu da ngeen di dem yaa ngi continué di wane sa réewande sa ñàkk worma sa boddi konte sa mën a boddi konte xeet arrogance arrogance total boy Moussa Bokar Thiam mi ki warul leena bet ci bu jappé wal fajiri jappé ko contact lamp diko ko di ko fay di tal di fay di tal ki warul leena bet waye yeen yi nga xam yeena fa nek xam leen seen bop gis nga ko dugg ci urne ko dugg ci urne kenn du la fa fekk di la top sànni la leen ku leen neex ñun en attendant groupe bu bon bi groupe bu bi groupe band bi groupe no xor yi nañu abal rek ak seen nguur ñu seet ñeneen ta maire maire mënu leen a bunduxataal mënu leena genné maire mënu leena fitnal du ben maire nak su doon loolu la rek maire bi maire yeewi askan wi bi fi mu Macky Sall nekkee ñu mën a am benn pouvoir boo xam ne mën nañoo sonal kenn gis ngeen leen amuñu woon benn pouvoir. pouvoir bu mën a fitnaale kenn amuñu ko moom mii bis bu ñu ablee dootu am pouvoir du bu su bu waxati ci yar lay waxee ak teggin élection législative kii mooy garde corps yi Ousmane Sonko yu dóor leen ba ñu bëgg a dee am na ci benn nervi boo xamante ne nii daa bàyyi booy bi bëggoon a taal heureusement garde corps yee ko jàpp. ndax dañ ko xàmmee woon ci xeex bi biñ demee ba dugg ci hôtel bi mu ñëw ci hôtel bi ñu jàpp ko dañ koo dóor ba mu sawtu bayam kii mooy Moussa Bocar Thiam mooy def yëfi banditisme yooyu yëfi vëyu yooyu gis nga ñii dañ ñoo war a abal ak luñ ko jëndee nag pour ñu abal ñu da koo war a jar gars yi dem leen ngeen voté ji bu leen kenn xoqatal bu leen kenn xoqatal yàgg na ci yii nappaate yeeg yooyu noonu yàgg na ci espèce de kaña